maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant ñu ngi lay ndokkal ci sësët bii nga am di ñaan yal na dund jàmm ba nga fekke njëriñam ñaanaloon naa la ko ci uh, ngénte Balla Gaye Serigne Saliou ñaanalaat la ko di ñaanal sunu góor gi yàlla fëgg boppam ba mu jóg doxi soxlaam barke yonte bi tey Sa jël doom tuddee Balla gay yëg-yëg boobu nan la am ci nga meññ Balla gay meññ Sa yëg-yëg boobu dex na kontaan ma kontaan moom sama xol daa sedd guy na glace na wax dëgg yàlla. mu kontaan bu baax a baax mu mel ni lii dina gën a rataxal ci gën a rataxal seen diggante ak cofeel gi ne woon seen diggante. dina ko gën a yokk nag mu wax dëgg yàlla waaw mbokk lii rek la waaw ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tuddante ak doom mu gën a rafet nag. laaj naa la ko dinaa la ko laajaat Balla ak Sa ku ci gën a nekk sa xarit parce que Balla nee na moom la Sa na ma moom la. ñoom ñaar yëpp samay xarit jàpp <laughs> ñoom ñaar yëpp samay xarit lañu. Ah. waaw mooy sa xarit. sa xaw ma Sa Thiès caat la Omar xarit la. Ah. <laughs> kon nag ñoo yem. Ah. waaw. Euh, Balla toogal. Sa Thiès la rek nga wala wan kon maire bi saa la féeteel. laaj naa ko mais dégg nga mu ne saa caat la kon. kon xarit la ah. waaw. caat a ah, xarit benn bakkantam am na de. waaye caat. caat neex na. waaw caat neex na. boo amoo loo doon dénk tey sa ñaari doom tey ñoom ñaar lii lan lay doon ci ay kàddu. xanaa di leen ñaanal gudd fan ak wér rek gën a déggoo gën a jàppante rek. àdduna amul solo àdduna jàppante rek moo ci ne waaw loolu rek. jërëjëf ana góor gi nu mu def ngay ko yaram bi. bu baax baax. yàlla ko yàlla gën a fëgg mu gën a wér. amiin jërëjëf mbokk yi ñu toppal leen li nga xam ne mooy tuddum Sa Thiès jël na doom tuddee Balla gay 2 xaritam kenn du ne lu tax ndax bëgg magam la euh, tafu ci wetam lim bëgg la bëgg lim bañ la bañ kon bu Sa Thiès jëlee doom tuddee Balla gay 2 jaadu na. kon képp kuy soppee Balla gay rek jàppal ni tur wi tey yaa ko moom Sa Thiès la moo jël doom tuddee Balla yàlla na dund tabarkeel dara du leen ci nag ci dakaat ba ngeen ànd ceeg faadal lépp lu xew ci bis bi rek na leen ko wan yàlla na ñëpp am jàmm ñu dem